bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi wakafa wasalaamun ala ibadihi alladina istafa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam sëriñ Mor noo ngi lay nuyu di nuyu mbokk yi fi teew yépp ak ñi nga xam ne sunu kàddu dana àgg ci ñoom fuñ mën di nekk di ñaan koor gii nu nekk li ci jote weesu li ñu ci def ci lu baax yàlla nangul nu ko li ci desit mu yombalal nu li ñu ci digal te nangul nu ko ba mu tàmbalee la jiitoog li ci topp lépp itam lu ñu ci def ci safaanu mu jéggal nu ko li nga ko waxee kon waxtaan waa ngi jëm ci àtte yu aju ci alal alal yu aju ci sëy xam nañ ne jëmi alal ci boppam day lu munta ñàkk ci dund gi ndax jumtukaay la jumtukaay la buy yombal dund gi lu bari ci dund gi alal mooy tax mu mën a sotti moo tax ab sëy itam alal am ci am ci ak wàll ci tolluwaay yépp nag da tàmbalee ci ba ñuy waaj sëy ba dañ koy bëgg dañuy bëgg sëy bi am da tàmbalee ca booba ba bi sëy bi di am boobu ci yàlla dogaloon leneen tam ba amatul diggante yooyu yépp am na ay alal yoo xam ne danay lëkkaloo ak ak sëy bi doon koy tàmbalee kon rek ni mu toftaloo rek tàmbalee ko ci ba sëy bi tàmbalee ba ba buñ demoon ba sëy bi nekkatul itam diggante yooyu yëpp lu ci xeetu alal rek yoo xam ne sëy bee ko waral ñu jëm ko waxtaane wax lu ca nekk itam la cay atteem la cay atteem ak buñ demoon ba la taxoon ñu koy def tabbiku itam luñ cee sañ ak luñ ca dul sañ kon dañ koy tàmbalee ci li ñuy wax labat buñ ca tollee mooy ki nga xam ne góor gi nga xam ne gis na jigéen jum bëgg def soxna waaye nag ñaaneebu ko lu jiitu kon ba mu amee bëgg-bëgg bi rek ba pas-pas bi am diggante boobu yépp lépp dañ koy mën a tudde rek labat labat diggante boobu dana am alal ju góor gi di baaxoo jox soxna si jigéen ji nga xam ne am na yéene yéene takk ko wala mu di ko jox ay bokkam ay way juróom alal jooju góor di baaxoo joxe bi mu demee ba am jigéen ju mu gis am yéene takk ko lan mooy atteem moo ci jiitu atteem mooy moom nekkut lu war waaye nag dagan na dagan na kon mooy luñ sañ la waaye nag du lu war du farat nit mën naa bëgg jigéen dem ba takk ko te du joxe benn lenn ci alal loo xam daf koy jox moom maa mu koy jox ay ay mbokkam ngir ngir liñ ko bëgg a takk loolu mën naa nekk kon la ci nit ñi joxe sañ nañ ko waaye nag nekkut lu war nekkut lu war bu nekkut lu war nag mooy ku ko defut itam kenn waru koo taxawu ne ko danga ko war a def ndax nekkut lu war waaye nag luñ sañ la li ci njëkkoon ci xeeti alal yi ñu ci joxe yépp ci diggante boobu moo xam da koy jox soxna si mu bëgg a tagg wala da koy jox ay waajuram wala ay bokkam ngir xëy na lépp rek bëgg a rafetal diggante bi wala bëgg a yombal li mu bëgg sañ na ko waaye nag du farat buñ demoon nag ba sëy bi mu bëgg sottiwut ndax lam doon joxe dana ko sañ a laajaat mooy mooy tom bi ci topp dana ko sañ a laaj dañ naan dañuy xool li tee mu sotti li tee mu sotti li tey mu sotti bu dee ci góor gi la jóge kon moom sañu laaj dara ci li gën a wér bu dee li tey mu sotti ci moom la jóge moom mi bëggoon bay joxe alalam moo dem ba génnal ca boppam bu boobaa mu sañu laaj dara bu fekkee nag la tey mu sotti jógewut ci moom waaye ci wàll ga ca des la jóge mooy ci wàllu jigéen ji mu bëggoon a takk la jóge bu boobaa moom it dañuy xàjjale dañuy xàjjale lim lim doon joxe lu mu ci joxe woon te xam ne li taxoon mu joxe ko mooy bëgg sëy bi ama tax waaye bu fekkoon ne sëy bi doxul maanaam sëy bi bëgg bu fekkoon ne bëgg-bëgg boobu amu fi woon du ko joxe kon loolu dana ko sañ a laaj kon loolu dana ko sañ a laaj ndax day mel ne joxe gam doon joxe daa ànd akub sart daa ànd akub sart muy sartub sëy bi am wala bu ñàkkee am it ñàkk ga am jóge ci moom moom wala mu jóge ci loo xam ne lu ci loxol kenn ci ñoom ñaar bu doon ne dañ doon kii ba yàgg far yàlla jëli fi kenn ci ñoom ñaar boobaa sëy bi amut waaye yoonu kenn ci ñoom ñaar nekku ci boobaa itam kenn du laaj lam joxe woon moo xam soxna see fi jóge moo xam góor gee fi jóge bu fekkee nag soxna si moo tax sëy bi sottiwut kon day mel ne ku doon joxe teg ko ci ab sart te sart ba sottiwut kon dana sañ a laajaat lam joxe woon loo ci xam ne ba mu ko joxe moom bëgg sëy bi ci la ko wékk sëy bi mu bëgg moo am ci la wékk li mu joxe kon dana sañ a laajaat loola bu ko laajee ren dañ ko koy delloo loo xam ne nag ba mu koy joxe wékku ko ci sëy bi am loola du ko sañ a laajaat ndax loola moom lu maye la te li ñuy wax maye nangu du du du luñ sañ maye nangu du luñ sañ maye nangu du lu baax kon àtteeb li nit di joxe bu bëggee takk te takkagul lu dagan la waaye du lu war lu mu ca joxe itam te wékkoon ko ci sëy bi li bëgg mu am bu yàlla dogaloon sottiwut wala tey mu sotti ci jigéen jële jóge dana sañ a laaj lam joxe woon bu ko laajee itam dañ ko koy delloo bu fekkee nag la tey mu sotti jógewut ca jigéen ji lu sañ a laaj dara ci leen joxe woon loolu kon mooy lu jiitu sëy bi di am am na lu góor di joxe itam bi sëy bi di am benn mu joxe ko mbaa mu warlu ko warlu ko mooy mu dige ko mu dige ko benn mu joxe ko mbaa mu dige ko jamono yi sëy yi ñuy fas sëy bi mu joxe ko mbaa mu dige ko loolu am na ci luy farata da cay farata mooy li ñu tuddee ak can ak can mooy loo xam ne moom waru gar ku ñuy may daa war a joxe can mbaa mu dige ko kon daal maye day ànd ko can boo xam ne góor gi lay war ki ñu koy may moo koy moom loolu kon alal la jot moom farata la farata la ji góor gi warlul ko benn mu joxe ko ci saasi wala mu doon bor mu doon bor boo xam ne da ko joxe waat ëllëg loolu kon moom dafa war yàlla wax ci alquran ne bu ngeen dee takk soxna na ngeen leen jox can wa aatu nisaa saduqaatihinna nihla ñoo koy moomal seen bopp fa in tibna lakum minhu shay'an fakuluhu hani'an mari'a nag sa ngeen ko jëfandikoo waaye ñoo ko moom kon can ji moom mooy li war ci diir bi ñuy fas bi ñuy fas sëy bi loolu rek moo ci lu war amul leneen lu ci war loo xam ne dañ naan góor da koo war a joxe jamono ji ñuy fas sëy bi can googu yi nag ndax buñ demoon moom itam ba sëy bi taxoon ñu joxe ko amatul ndax góor gi da koy sañ a laaj kon da cee am lu mu sañ a laaj ndax moom day joxe lépp rek bu fekkee joxe woon na ko mooñ caa jëlaat dara bu dee joxe gu joxe gu joxe gu joxewu ko itam mu sañ koo bañ a joxe wala mu am lu mu te sañ a téye loolu dañuy xool moom itam sëy bi àqalikoo gi kañ la am ndax dafa am lu jiitu ñuy jote wala dafa am ginnaaw bu ñu jotee ba noppi bu amee lu jiitu ñuy jote bu boobaa kon góor gi genn wàllu can gi lay joxe ba dañoo tàggoo lu jiitu ñu joxe ñu jote bu dee jote nañ ba noppi nag buñ fasee jote rek bu tàggoo amaatee itam góor gi du sañ a jël dara ci can bu fekkoon ne joxe na ko ba noppi du ci duñ ko ci delloo dara bu dee jotu ko woon a joxe itam day joxe lépp ginnaaw jote am na bu jote amul nag dañ tàqali ko kon moom bu dee joxe woon na sañ naa laajaat genn wàllu can ñu delloo ko ko bu dee joxe gutoon can gi itam sañ naa joxe genn wàll gi rek waaye sañ lañ wax waaye bu ko soobee mu joxe lépp fi mu sañee joxe genn wàll gi bu ko nooxee bu ko soobee mu joxe lépp yàlla ci alxuraan dafa wax ne fu mel noonu nga xam ne kon ku ci ne daa moom genn wàll gi ku ci ne sañ naa maye genn wàllam góor gi sañ naa ne du ma joxe genn wàll gi waaye damay joxe ba mu mat kon day mel ne may na ko genn wàll ga ca des jigéen yi itam sañ naa maye genn wàllam moom it ne genn wàll gi ma waroon jox sax bàyyi naa ko alxuraan ñaar yëpp la indi ne lu ci nekk mën naa nekk te da cee xiirtale sax dafa wax ne sax nag ngeen ngeen def lu mel noonu moo gën kenn ci yéen def loolu moo gën wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fa nisfu ma faradtum mooy di jiitu jote ba noppi tàggoo am kon genn wàllu lañ jigée woon ci kan moom lañ koy jox illa an yaafuun aw yaafu alladi biyadihi uqdatu nikaax wa an taafu aqrabu littaqwa wala tansawu alfadla baynakum inna allaha bima taamaluna basir kon lu dul kenn ci ñoom ñaar baale baale mooy genn wàll gam yeyoo mu mu mu mu bàyyee ko am ko settal te mu xiirtale ci nag mu xiirtale ci ne baale googu nag moo gën kenn ci yéen baale moo gën kon can gi bu tàggoo amoon fekk jote amagut kon góor gi genn wàllu can gi moo koy war mooy di ko war bu ko soobee nag mu jox ko ba mu mat bu soobee jigéen ji itam mu baal ko sax genn wàll googu mu di war ci moom bu jote xasee am nag moom can gépp ko koy war can gépp moo koy war loolu kon moo aju ci can lu dul can nag loo xam ne du can te nit ki di ko joxe moom it ci jamono yi ñuy yi ñuy fas sëy loola moom itam du nekk farata du nekk warugar waaye ba tey lu mu sañ na nit mën naa joxe dara jox ko soxna suñ koy may mu jox ko ko jamono yi ñu ko koy may sañ na ko waaye nag du farata mooy bu bu bu joxe wut lu weesu can itam kenn amul sañ-sañu di ko taxawu naan ko da nga war a joxe nàngam war war moom amul can rek mooy li war bu ko xasee joxe mbaa mu digee ko ci jamono ji ni fasee bi moom amul leneen lu koy wax ba mu war a joxe waat waaye nag bu ko soobee mu joxe bu ko soobee mu joxe bu joxee nag lu bokkut ak can bi ci jamono yi ñuy fase sëy bi loolu mu joxe bu yàlla dogaloon leneen ci sëy bi it du ko sañ a laaj du ko sañ a laaj ndax moom it ak mayee la lu mayee la te mayee nangu itam kenn du ko def mayee nangu kenn du ko def yonent bi wolof moom am na lu mu ciy wax ku koy wax noonu am na lu mu ciy wax wolof mayee nangu ku ko def nangam waaw yonent bi am na lu mu ci wax moom it yonent bi dane moom ku ko def da ko nuróoleeg ab xaj xaj bu lekk ba suur ba noppi wàcc ko lekkaat ko xaj bi ñu ci dugal rek tax na mu ñàng xaj bi ñu ko nuróolal rek tax na mu ñàng rawatina nag mu def loolee lekk ba suur wàccu lam lekkoon lekkaat yonent bi naan maye nangu loolu lay nuru kon du lu rafet du lu rafet ba tax na ko xas mayee ci coobareem ci tayut bakkanam lam maye dara mu dara wëtt tax mu di ko mu di ko nanguwaat di ko jëlaat loolu kon mooy li aju ci jamono bi nga xam ne ci la ñuy taxawal sëy bi can bi farata la lu dul can nag du farata waaye sañ nañ koo joxe can bi bu sëy bi jeexoon te fekk jote amagut góor gi genn wàll ga mooy moo koy war su fekkee jote am na nag lépp a koy war lépp lay war a joxe la ca dul tem nag sañu koo laajaat ndax lu maye la te nit bu maye di di nangu léegi fas nañ sëy bi biñ ko fase sëy baa sëy bi nag léegi taxaw na bi sëy bi taxawee moom it li góor gi di defal soxnaam wala bokki soxnaam am na ca luy farata am ca lu dul farata buñ ne luy farata nag mooy loo xam ne moom lañ sañalaat nga xam ne bu ko deful ñu sañ koo taxaw xam ko war a defal sañ koo taxaw ndax da koo war loolu moom mooy soxna si ci boppam góor gi moo ko war a yor moo ko war a yor yor ga nag la ca alal bi sottal kon moo moo war a def alal joojee yor gi mooy di ko dëkkal ko mooy wutal ko fu mu dëkk góor gi la war di ko dundal di ko jox lum lekk di ko jox lum naan borom kër gi la war te loolu lépp alal moo koy def di ko faj itam bu wéree dee borom kër gi la war te moom it alal moo koy def yooyu moom jamono ji nga xam ne sëy baa ngi ci loolu mooy li war góor gi ci soxnaam nga xam ne moom waru gar la farata la lu mu ci bàyyi sañ nañ koo taxaw bu ko dëkkalul wutalu ko fu mu dëkk wala wutalu ko lum lekk wala wutalu ko lum naan wala bu bu bu wér di ko faj lu mu ci bàyyi rek danañ ko sañ a taxaw ndax warugar la bàyyi yooyee nag lépp itam nag day aju ci man-manam day aju ci man-manam lu mu ca man lay lu mu ca man da ko war a def def ci itam lu tolloog man-manam bu fekkee man-manam àgg na fenn fi suñu ko def li ko yées lu yées man-manam kon day def te la muy def tolloo tolloo ak man-manam bu dee ku man-manam àggut fenn fi la muy def moom rek la mën a tolloo kenn du kenn du ko taxawu ci lu ëpp man-manam waaye nit ki man-manam ba mu defut ci lañ ko taxaw ci wàll yooyu yi ñu dëkkal ko di ko jox lu muy lekk ak lu muy naan ak lu muy fajoo yooyu ñooy farata yi nga xam ne ñoom mënta ñàkk bu farata yi mënta ñàkk jàllee gis nga farata yooyu sax àgg na ci bu fekkoon ne góor gi sax am na lum ci man te defu ko sax may nañ jigéen ji bu ma nee ginnaawu góor gi sax jël ko ci alalam def ci loola nga xam ne farata la yonente bi sax sallallahu alayhi wa sallam am na soxna su ñëwoon di ko laaj loolu muy soxna hind hind mi nga xam ne moo nekkoon soxna abu sufyaan muy wayjuru sayyidat sayyidna muawiya muawiya ibn abi sufyaan hind biñ duggandoo ci lislaam ñoom ñaar hind dana yonente moom daa doon soxna su kii nag soxna su su su su su kilifa daal kilifa la woon ba mu nekkee ci kéefër ga kilifa la woon ca kéefër ga ci ak mbon ba moo moo sooke moo sooke woon rey gi ñu rey Seydina Hamza kon ak mbon itam ba mu ca tollee daana ko jox àqam waaye bi mu duggee ci lislaam bi daana kilifa ba léegi moo tax bi mu duggee ci lislaam rek am na waxtaan waxtaan yonente bi ci yoo xam ne bi yonente bi di wax sax jaayante gi ñu doon jaayante naan na ngeen jaayante ne du ngeen jaaloo wala ah njaaloo gor dana njaaloo nga xam ne kon la muy kii kii moom am na yoon kilifa la daal moo tax itam mun a yonente bi Abu Sufyaan kat mooy sama borom kër waaye nag da dul yàqkat du yàqkat dafa ŋot dafa ŋot ba li ma war a dundal man ak sama njaboot du nu ci jox lu doy ndax danaa ko sañ a ginnaaw di jël ci alalam lu ma doy maag sama njaboot yonente bi ne ko sañ nga ko waaye nag na ca yem na yem ca loola li nga xam ne farata la lu mu ca defut te man ko boo ko mënee ginnaaw jël ko ci alalam def ko ca sañ la loolu day wane na kon li mu nekk farata loo xam ne ki ko ki nga ko war a jox sax sañ na laa ginnaaw jël ko ci sa alal ci loo yëgut sax loolu day wane kon ni mu ni mu nekk farata kon yooyu ñoom ay farat lañ yoo xam ne góor gi da ko da ko ameel da ko ameel soxnaam kon yooyu farata la suñu cee suñu cee bàyyi lenn bu yooya jàllee nag am na leneen lu góor di defal soxnaam ci te alal di ko di ko sottal waaye yooya nag du farata du farata mooy lu mu ca deful dañee su ko taxaw ne ko danga ko def tey naan farata du waru ko waaye nag lu mu ca man lu baax la ndax ak ja ab jàmbur sax ab ndax booba booba booba kon ci dimbale lay dugg ak ci coobarew te nit ki dañ ko sant muy coobarew di def ci coobareem lu baax di ko defal sax ay jàmbur sakkal du maanaam soxnaam li nga xam du farata ci moom waaye aajooy soxna si la te du farata ci moom moom loolu sax bu ko ci mën a dimbale da ko da ko ñuy bëgg mu ko cee dimbale waaye nag taxul mu nekk farata mooy bu ko defal sam kenn du ko taxaw waaye nag danañ ko ci xiirtal ndax ci ànd bu rafet la bokk la nga xam ne du farata li dul farata ci sëy bi amee ba noppi am na ci yooyu balaa jigéen jee bu fekkee dana sëy balaa sëy am na ñu koy jox yoo xam ne duggut ci li ñu doon wax dina ay may gu njëkk ak yu mel noonu yooyu du farata du farata da koy def ngir xëy na rek rafetal seen diggante ak yu mel noonu waaye du farata waaye bu dee lu man la it wàññiwul dara bu dee lu man la wàññiwul dara bi sëy bi amee ba noppi itam jigéen ñi am na yu ñuy def ñoom di ko joxalante seen biir yu mel ne ay ndawtal ak yu mel noonu ndawtal du farat borom kër amee lu soxnaam ndawtal amee lu ko ndawtal waree bu amee ndawtal warut warut borom këram mu koy jox du farata ci moom du waru gar ci moom waaye bu ko mënee nag bu ko ko mënee dimbale lu baax la waaye du farata buñ ne du farata rek mooy bu ko defut kenn waru ko cee taxaw waaye nag bu ko mënee nag mu def ko lu baax ndax ndawtal yooyu itam day rafetal ay diggante kon dimbali soxnaam si moom itam lu muy rafetal ay diggante nit lu mu ca man baax na mu def ca lam ca man mu def ca lam ca man waaye bu ñu ko ci bëggee teg lu moom itam sañ na ko gàntu sañ na ko gàntu ndax du farata ci moom te lay farata sax day sujee tegal luñ mënut ak kantumaa nag yëdul lu dul farata kon xeeti ndawtal yeeg ay teg yi ñuy teg ci ay daayira ak ay mbootaay ak ay kuur ak yooyu yëpp amu ci lan loo xam ne waru garu borom kër la bu mu ameel soxnaam ameel lu ko waaye nag bu ko mënee mën na ko caa jàppale mën na ko ko mën na koo dimbale ba mën a def yooye ndax yooyu yëpp itam luy rafetal la digganteem ak ak nit ñi kon lu mu ko ci mën a jàppale jàppale ko ca waaye nag du farat du farat kon lépp lu xeetoog yooyu rek yi nga xam ne soxna si daal am na yitte yu muy am yoo xam ne ala la koy sottal waaye nag génn na yi ñu waxoon muy dund lekk naan dëkk ak ak faju ñeent yooyu lu ko génn lam cay am ci aajo yu xaalis bi sottalit du borom kër gi la war borom kër gi nag lu mu ca man mën na ko caa dimbale mën na ko caa dimbale mën na ko caa jàppale kon yooyu mooy alal yi nga xam ne borom kër dana ko dugal di ko jëmee ci soxnaam di sëy bi amee ba noppi bu yàlla dogaloon leneen am ci sëy bi mooy tàggoo am moom it lan mooy doon àtte bi da nga xam ne farata la woon moom sañu cee suñu cee laaj dara lam doon joxe tamit farata suñu cee laaj dara lim doon joxe te du farata itam suñu cee laaj dara ndax moom it may la niñ ko waxee woon te may nangu kenn du ko def lay farata mayewu ko moom day waru garam li dul farata da koo maye li may itam suñu ko laajal ndax may nangu itam kenn du ko def te may googu wékku koon ci benn sart wékku koon ci sart maye gamoon sañoon laajaat mooy ba muy labat dam doon joxe moom da ko wékkoon ci sartu sëy bi am ci sëy bi amee ba noppi nag li muy joxe moom wékku ko ci benn sart da ko joxe rek sumu fase joxe rek mayee na da ko maye du du nangu la mu maye woon moo tax yàlla wax ci alquran ne lu ngeen man di defal seen soxna lu mu bari bari bari bari bari bu yàlla dogaloon ak tàggoo am am di am ci seen diggante bu leen laaj bu leen leen laaj lenn dara dara dara ca la ngeen leen joxoon wa in aradtum istibdaala zawjin makaana zawjin wa aataytum ixdaahunna qintaaran fala taaxudu minhunna shay'a kon bu ngeen joxoon seen soxna lu baree baree bari ci alal it ngeen dem ba tàngoo di am seen diggante bu leen jël bu leen jël dara fala taaxudu minhu shay'a bu leen jël dara ca la ngeen leen la ngeen ko joxoon mooy alal ji ngeen ko joxoon bu leen ci jël dara la bu ngeen demee ba tàggoo di am seen diggante ak lu mu bari bari kon bu tàggoo dee am góor gi warta jël dara ci jigéen ji tàggoo gi mooy bu fekkee bëgg-bëgg tàggoo bi ci góor gi la jóge bëgg-bëggu tàggoo gi ci góor gi la jóge kon sañuta jël ci soxna si dara lu lu mu ko joxoon lu mu koy laajaat du it lu mu koy laaj leneen loo xam ne dana ko daan dama koy jox ma ma ma ma ma ma yewi dinaa bëgg-bëggu tàggoo tàggoo bi ci góor gi la jóge du saña laaj soxna si dara alal yi ñu tuddoon yëpp biñ tàmbalee ba léegi ci góor gi lay jóge di dem ci jigéen ji wala bokk ci jigéen ji ay way juróom ma lay bokkal waaye am na alal ji itam du mën a jóge ci jigéen ji dem ci góor gi waaye bu fekkoon ne jigéen ji moo bëgg moo bëgg tàggoo ak borom këram te li tax mu bëgg a tàggoo du du lor jo du lor ju koy ju koy ju koy ju koy dal du lor ju koy dal ci sëy bi du lor ju koy dal ci sëy bi du lor ju koy dal mooy du ne borom këram moo gàttañlu moo am lu ko war ci moom te defu ko demewul noonu waaye jigéen ji rek moo dem daal ba bëgg génn ci sëy bi rek moo dem boo cee génn noonu rek li ñuy wax léegi naan moo dem ba gisatu ci boppam noonu rek sentir ci boppam lu ñoo xam na mooy kon daa dem rek ba bëgg caa génn rek waaye nag nangu na ne moom góor gi gàttañ lu wut góor gi amut lu ko war lu mu defut bëgg-bëgg boppam rek ci la bëgg génn loolu tam danay am mooy nit danay dem ba mbir du ko safati bu naan nangam safuma du mën a wax lu tax du mën a wax lu tax waaye safatu ko rek ndax bu ci toogoon itam mën naa def nag luñ ko tere ndax bu toogoon ci sëy bu ko safatul mën naa tax ba li ko war ci borom këram du ko def mën naa tax ba li ko war ci borom këram du ko def mën naa tax ba borom këram moom it li ko war ci moom du ko def ndax yëg na ne sëy bi safatu moo tax bu ñu àggee foofu nag ginnaaw jigéen ji la safatul te ñàkk saf rek la waaye du lor ñu koy dal di di sabu ko ci sëy bi foofa nag la góor gi sañ a laaje jigéen ji ne ko ah ginnaaw kat yaa bëgg mu tàggoo te it waxoo ne man maa gàttañ lu ci lenn kon nag nangu naa waaye rek may jox nangam ñu waxaale ba juboo lu ñu waxaale ba juboo ci rek góor gi sañ na koo laaj jigéen ji bu ko joxee góor gi may ko baatam wala boog jaay ko baatam waaw di jënd baatam dëgg-dëgg da ndax du may may waaye di koo jënd kon sëñ naa jënd baatam kon waaye fi ñu koy sañe nag mooy foofu mooy góor gi jigéen ji moo bëgg a génn ci sëy bi te bëgg gaa génn la ko sabab nekkul lor bu mu ci lor waaye da ko safatul rek foofa la saña jënde baatam li ñuy tudde suñu ko foofu rek la koy sañ góor itam foofu rek lay sañ jëlee dara ci soxna si ngir ngir ngir ngir sëy bi jeex foofu rek la koy sañ kon am na alal bi jigéen mën a joxe ngir jënd baatam yàlla ci alxuraan dana jotu ngir mën a jot boppam ngir jotu jotu mooy mën a jot boppam wala yaxillu lakum an taaxudu mimma aataytumuhunna shay'an illa an yaxaafa alla yuqiima xuduud allah fa in xiftum alla yuqiima xuduud allahi fala junaaxa alayhima fi maftadat bih mooy li ñu wax léegi rek mooy loolu foofu la yàlla waxee ne ci la góor sañ a jële dara ci jigéen ngir sëy ba jeex mooy jigéen ji moo dem rek ba safatu ko te bu ci toogoon dana tax ba kenn ci ñoom ñaar bañ a def la leen yàlla digal mën naa tax jigéen ji du defati la ko yàlla digal ci góor gi ndax ndax sëy bi safatu ko góor gi jég na ne sëy bi safatul jigéen ji mën naa tax moom itam ba li ko war ci digganteem ak jigéen ji du ko defati te sëy baa ngi fi ngir loolu bañ a am nag kon ñu ne góor gi may nañ la rek nga laaj ko dara may nañ la nga laaj ko dara bu la ko joxee nga yeewi loolu it dafa dëppoo ak ne lislaam tërale ci wàllu ci wàllu ab sëy bi mu xasee am ba noppi góor gi moo am sañ-sañu moom bu bëggee mu jeex rek mu jeex góor gi moo am sañ-sañ boobu bu bëggee mu jeex rek mu jeex jigéen ci amul sañ-sañ boobu waaye nag am na sañ-sañu bëgg mu jeex waaye sañ-sañ jeexal ko nag amu ko moom góor gi nag am na sañ-sañu jeexal ko léegi nag sëy li ñu tuddee contrat la li ñu amee ci contrat yi di am nii rek diggante diggante ñaari wàll bu defee contrat lu ci bari ku dem ba bëgg a génn ci contrat bi ka ca bëgg a génn dana jox ndàmpaay ka ca des dana jox ndàmpaay ka ca des ki ci bëgg a génn dana jox ndàmpaay ka ca des ndax kii dugg ci contrat da cee dugalaale ay yéeneem da cee dugalaale ay ay ay ay ay yu bari daal buñ xëyee xëy ka ca des ne ko dama bëgg contrat bi jeex dañuy bëgg mu jox ko ndàmpaay loolu rek mooy am ci sëy itam mooy am ci sëy ginnaaw jigéen bi moo bëgg sëy bi jeex góor gi dana sañ a laaj ndàmpaay dana ko sañ waaye bu demee woon noonu sax foog naa góor gu bëgg a bokk ci ñi gën moom du laaj dara bu demee woon noonu sax ndax bi ñuy dugg ci sëy bi ñoom ñëpp da leen a safoon da leen a saf bu yàlla dogalee mu dem ba safatul jigéen ji góor gi bu dee dëgg-dëgg góor gu yiw dëgg-dëgg sañ naa laaj waaye kon du laaj kon du laaj waaye nag sañ naa laaj foofu la góor sañ a laaje jigéen mu jox ko dara ngir sëy bi jeex cosaan bi mooy as soxna moo ñëwoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man kat sama borom kër bii sikkalu ma ko ci dara sikkalu ma ko ci dara kon mooy mooy amut gàttañ lu ko mu def sama diggante ak moom ci sëy bi sikkalu ma ko ci dara waaye man daal maa dem rek ba daal sëy bi damay ragal ne bu ma ci bu ma ci desee daal dana tax li ma ci war du ma ko def ndax daal safatuma daal loolu ko waaye nee na ko sikkalu ma ko ci dara sikkalu ma ko ci jikkoom sikkalu ma ko ci diineem waaye nag damay ragal ne boo ci desee itam nag li ma war ci sëy bi du ma ko def ndax safatuma yonente bi ne ko ah mën nga koo delloo am na tool bu mu la joxoon ndax mën nga koo delloo mu ne ko waaw mën na kaa delloo kon boo ko delloo mu mu may la sabat wala mu mu jaay la sabat loolu mooy cosaanu dañuy tuddee summiku wala summi summikoo te gis nga ni ñu feeñe mooy soxna si dane sikkalu ma ko ci dara sikkalu ma ko ci dara foofu kon la góor sañ a jële alal ci soxnaam ngir jeexal sëy bi nekkoon seen diggante loolu tam ci alal yi am ci ci wàllu sëy ci lay dugg mooy li jigéen di joxe ngir jënd baatam bu fekkee dafa dem ba sëy ba safatu ko waaye nag amut lum sikkal ci borom kër ba waaye bu ab sëy jeexee it muy góor bu fase woon soxnaam fase moo xam ne dellu ginnaaw mën na caa am fase soxnaam te fase ma dellu ginnaaw mën caa am mooy kon benn yoon la ko la ko la ko la ko faseegul kon buy jàpp idda dana mën a dellu ginnaaw balaa idda ja jeex bu dee ñaari yoon la ko jot a fase itam buy jàpp idda dana mën a dellu ginnaaw balaa idda ja jeex kon ñaari idda yooyu ñooy idda yi nga xam ne dellu ginnaaw mën na caa am bu dee fase mu mel noonu la diir bi soxna si di jàppe idda diir boobu li ko waroon ci moom lépp da koy war ci moom ba léegi li waroon borom kër bi ci soxna si ba fi sëy bii nekk ci soxna si nekkee ci idda joo xam ne mën naa dellu ginnaaw ci biir idda ji loolu day dox seen diggante ba léegi mu ñeent yi ñu waxoon mu doon ay waru gar day nekk waru garam ci soxna si ba léegi ba léegi da koo war moo ko war a dëkkal moo ko war a dundal lu muy lekk ak lu muy naan moo ko war di faj ba idda ji jeex muy daj yi nga xam ne nag mën naa dellu ginnaaw di passé mi lu jiitu idda ji jeex ndax idda ju mel noonu li fekk muy jeex sëy bi jeexagut dogut sëy bi dogut ak sëy du dog li fekk bu dee idda ju mën a dellu ginnaaw la li fekk idda ja di jeex kon fi yëg muy jeex sëy bi dogut ginnaaw sëy bi dogut nag li ko waroon ci soxnaam ba léegi ñu ngi koy war ci moom ba léegi ñu ngi koy war ci moom ci loo xam ne ci wàllu alal la aju lépp ngay war ci moom ba léegi bu fekkee nag day passé moo xam ne dellu ginnaaw ci biir idda ji mënu caa am kon moom bu passé mi amee rek sëy bi dog na bu passé mi amee rek sëy bi dog na lu mel ne ñetteelu yoon ñetteelu yoon la ko passé bu ko passé ñetteelu yoon dana jàpp idda waaye nag idda joojee du ci saña dellu ginnaaw ci biir idda joojee bi mu ko fasee rek la sëy bi dog bu xasee dog nag yooyu nga xam ne sëy bi ko waraloon day dog dañuy dog ñoom it booba du ko amee leeti yooyu mu yooyu mu ko amee loon ba sëy bii nekk du ko amee leeti dëkk dëkkuwaay ak yooyu ci topp bu dee ngir gi sax dañu dëkkuwaay dana ko amee dana ko ameel dëkkuwaay bu fekkee dog na itam dana ko ameel dëkkuwaay bu dee passé moo xam ne bi mu amee rek la sëy bi dog diir ba muy jàpp idda itam dana ko ameel dëkkuwaay waaye du ko ameel li ci des du ko ameel li ci des du ko ameel dund du ko ameel am paj waaye dana ko ameel dëkkuwaay nag ci ngër yi am na yeneen yoo xam ne ñëw du ko ameel lenn yàlla bi muy wax ci saar yu mu tuddee saarum passé te njëlbeen nga wax na ci àtte yooyu ñu suratu talaaq bu passé amee askinuhunna min xaytu sakantum min wujudikum wala tudaaruhunna li tudayiqu alayhin kon mooy nag leen dëkkal nag leen dëkkal ngeen dëkk yéen ci seen man-man kem seen kàttan kem seen man-man te bu leen leen di xatal di leen buntu xatal ngir ñu génnal seen bopp waaw kon nag laa tuxrijuhunna wala yaxrujna illa an ya'tina bi faaxishatin mubayyina bu leen leen génne ñoom itam buñ génnal seen bopp mooy fi nga xam ne fa lañ doon séyee bu ñu jàpp idda itam nañ fa nekk ba idda jeex bu idda jeexee te dellu ginnaaw amul nag ñu xam ne kon séy bi dog na mu door a dem fu muy dem kon bu fekkee kon day passé moom dellu ginnaaw mën naa am ci biir idda ji kon biiru idda jooju day ameel soxna si lan ko amee loon bi bi bi bi passé mi amagut ñu ñeent yooyu bu fekkee nag dafa dog bu dogee itam dañuy xool ndax soxna si toll na diggante wala déet bu tollee diggante itam ba léegi da koy da koy dundal moom da koy dundal ndax dundal gi dëgg-dëgg du moom lay dundal waaye doomam lay dundal ndax moo war dundal doomam te munu mënuta dundal doomam te jaarul ci yaay ji kon dundal gi ñuy dundal yaay ci lay dundalee doomam waaye dëgg dëgg doom ci lay dundal bu ñu ko seetloo ndax ëmb bee tax bu fi ëmb bi nekkutoon du ko dundale ci ndax iddaja jeex kon saa bu sëy bi dogee moom li ci doxoon day jeex muy warigal yooyu day jeex lu dul ne soxna si dafa tollu diggante kon ba léegi moom da koy yor da koy dundal ngir doomam lay dundal ci ginnaawam day jaare ci moom ngir dundal doomam bi nga xam ne ñoo moo ko yor bu fekkee nag ba tey idda ji jeex na idda ji jeex na ba sëy bi dog na bu dogee bañ xam ne lépp jeex na nag foofu itam digal nañ góor gi ndàmpaay li ma doon wax mu mu mu joxe ndax bëgg-bëggu bëgg-bëgg bi ci moom la jóge bëgg-bëggu sëy bi jeex ci góor gi la jóge te am na sañ-sañu moom saa bu ko bëggee rek daal di koy dogal mooy fase bi fase itam topp nañ ko topp ko topp ko topp ko ba idda ji jeex ba sëy bi dog kooku nag dañ ko sant moom it mu jox ndàmpaay jigéen ji gis nga loolu moo tolloog rek ba jigéen ji bëggee sëy bi jeex moom it mu joxe ndàmpaay mu mu saña ñu sañ koo laaj ndàmpaay ñu sañ koo laaj ndàmpaay foofu jigéen ji santuñ ko ko moom waaye góor gi moo ko ko sañ a laaj dina góor gi dañ ko koo sant dañ ko koo sant dañ ko sant bu fekkee moo may soxnaam baat ba lépp jeex ba sëy bi dog dañ ko sant na mu def ko ndàmpaay ndàmpaay loolu mataa la ko alxuraan tudde ci téere ñu koy tudde rek mu temps waaye ndàmpaay mën nañ ko ndàmpaay rek ci wolof yàlla dafa wax ne la junaha alaykum in tallaqtum nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida wa matti'uhunna ala al-muusi'i qadaruhu wa ala al-muqtiri qadaruhu mataa'an bil ma'ruufi haqqan ala al-muhsiniin waxaat feneen ne walil mutallaqaati boobaa gën a yaatu ndax li da ko waxoon moom ci kiñ kiñ bàyyi lu jiitu jote di am fii nag moom da ko wax ci ñëpp walil mutallaqaati mataaun bil maarufi xaqan ala al muttaqin kon kuñ fase am na ndàmpaay lu ñu ko war a jox ndàmpaay loolu àq la yoo xam ne ki ko ki ko fase moo ko ko ameel gis nga kon loolu yamoo la bu dee bëgg-bëggu tàggoo gi ci góor gi la jóge góor gi lay joxe ndàmpaay bu dee ci jigéen ji la jóge jóge itam jigéen ji lay joxe ndàmpaay da da dañ koy sañalaaj ndàmpaay laa bëggoon dañ ko koy sañalaaj waaye fi ñu ko koy sañalaaj yéen nag mooy bëgg-bëgg bi ci moom la jóge te bëgg-bëgg bi sikk sikk sikkal gum sikkal góor gi waralu ko foofu itam nag war nañ cee bàyyi xel ndax góor ñi itam ñu ngi ciy tooñ ci wàll foofu ñu ngi ciy tooñ tooñ yu métte métt dana am góor ñoo xam ne dañuy dañuy tooñ jigéen ji dañ koy tooñ di ko lor dañ koy tooñ di ko lor te jigéen moom amul sañ-sañu jeexalub sëy sañ-sañu ñaan sàkk la am mu sàkku ñaan baat góor gi bañ koo may baatam bëgg koo jaay baatam bëgg ko jaay mooy bëgg mu jox ko dara foofu nag sañu foofu sañu li ñu waxoon fi mu ko sañee mooy bu fekkee bu fekkee loru ko gàttañ lu wut jigéen jee dem rek ba safatu ko foofu la góor gi sañee laaj góor ñu bari nag dañuy tooñ seen soxna di gàttañ lu di di ko xañ àqam di def yooyu yépp ba noppi bu bëggee génn ci sëy bi di ko laaj dara loola bu nit ñi xamul dara ba nangu ko bay joxe dara itam moom ma ko jël la muy jël lewut moom ma ko jël àq da ko jël alal jàmbur ci lu dul àq ci lu dul yoon ndax mayewuñ boobu góor bi jël xaalisu soxnaam ngir jeexal sëy boo xam ne soxna si da cay loru loolu mayuñ ko góor bu ko defee buñ ko ci toppee ba jox ko it moom bu ko jëfandikoo du lew ci moom loolu jara bàyyi xel na fi mu sañe laaje mooy bu ko soxna si ne ah wax dëgg yàlla sikkalu ma la ci dara waaye nag daal daal dama ragal ne mu ci nekkee itam daal li ma war dama ko defati ndax yëpp yi daal safeetuma noonu daal foofu rek la saña la saña laaje te la gën sax mooy bu fekkee ku bëgg a bokk ci ñi gën la sax du laaj booba loolu luy am la luy am la luy am la yàlla mooy wëlbati xol léeg-léeg xol mën naa jëm fenn ba si àgg rek mu jékki-jékki jëmatu ko te borom sax mën na cee bañ a mën dara waaye jëmatu ko boobaa nag da koy dimbalee itam rek xam ne am natt la bu ko daal nga boo yiwee nga ànd ak moom rek ne ko may naa la wala may naa la sa baat rek doo ko jaay dara waaye sañ nga ko nag jaay ko ko foofu rek waaye nag bu dee da cee loroo moom sañoo koo laaj dara foofu bu jigéen ji di loolu ci sëy kenn mënu ci dara borom kër bi kenn mënalu ko dara te mi ngi tooñ mi ngi koy xañ àqam mu ñaan ko baat mu lànk foofu jigéen ji dem ci kilifee la war a def te kilifee da góor gi am na kilifa dem ci ay kilifaam ay kilifaam wax ak moom ngir mu yawi ko bu amul kilifa wala déggalut ay kilifaam mu dem ci yoon yoon wu mën di doon nag yoon wu fi nekk rek bu demee ci yoon yu fi nekk xamal leen li muy daj ci sëy ci ay lor te ki mu ko seqal nangu ko may baatam yoon moom dana wañ loxoom dindi sëy bi jeexal te bu ko jeexalee day jeex bu ko jeexalee day jeex bu jàppee iddaam jóge fa dana sañ see keneen konte bi daal mën naa tas Hmm, konte bi daal mën naa tasu sëy bu baax a baax bu baax a baax yoon wu fi nekk rek moo fi tas yoon wu fi nekk rek bu fekkee góor gi yiwut yiwut mooy nanguwut a yewi yi nga xam ne mi ngi koy lor na déggalut ay kilifa itam yu mën a wax ak moom bam bam bam bam yewi ko dañu dem ci yoon yoon wañ loxoom moom ak yoon wu mën di doon rek yoon wu fi nekk rek yoon wu fi nekk rek kere ñu dem mu wañ loxoom waaw bu doon bu ñu doon àtteewal islam itam yoonu lislaam day def loolu day tasu day day firi ab sëy kon day tasu sëy yoon weneen tam day tasu sëy kon bu ñu àggee foofu yoon wi fi nekk rek jigéen ji sañ na faa dem jàmbat fa bu ko jàmbatee yoon moom bu gëstoo ba gis ne lii muy wax dëgg la day tas sëy ba wàññi loxo góor gi tas sëy bu fekkee nag am na kilifa yu mu déggal day njëkk a jaar ci ñoom ñooñu ñoom ñu waxtaan ak moom rek ba mu defal ko boppam kenn bañ ko cee kenn bañ ko cee gàtt kon loolu ci wàllu li ñuy tuddee euh, summiku euh, ci la aju ci fiñ sañ a laaje jigéen mu joxe alal ngir ñu yewi ko ak fiñ fiñ ko sañewut ak fiñ ko sañewut te fiñ ko sañewut nag ñu bari di ko fa def ñu bari di ko fa def ki nga xam ne nag borom këram moom moo faatu ba léegi mu nekk ci idda ci borom këram faatu mu nekk ci idda moom borom xam yëpp dañ ne amee luñ ko ab dund amee luñ ko ab dund amee luñ ko ab dund waaye nag bu fekkee borom kër gi moo moom kër gi mu nekkoon moo ko moom kon moom soxna si diir bi ñu jàpp idda moom dañ koy bàyyi ci kër gi ak xam la ñu bàyyi ko ci kër gi mu nekk fi ba iddaam jeex bu fekkee borom kër gi moomoon kër gi moom ko wala mu luyee woon ko te fay ko lam jotoon a fay li fekk muy jeex soxna si day sañ a toog ci kër googu bu fekkee nag borom kër gi moomutoon kër gi wala bu dee luyee woon na ko itam lam fayoon jeex na moom boobaa nag moom it am na àq ci miraas mi ñu borom kër gi alal alal alal ji mu bàyyi moomatu ko léegi bi ñu fi jógee moomatu ko moo tax duñ ci mën a jël dara di ko jox ci turam loolu moo tax ba ci mbàyyi ginnaaw muy muuru duñ ko mën a jox dara ci tuuru borom kër gi ndax borom kër gi moomatul alal ji te moom am na ci wàll ni ci ñeneen amee wàll moo tax duñ ko gàddu la ci yi nga xam ne borom kër moo ko doon gàddu ndax moomatul alal moom te moom alal yi mu fi bàyyi moom am na ci wàll ñeneen am ci wàll waaye nag bu dee bàyyi na ci kër goo xam ne moo ko moom wala kër gum luye woon te fay ko jiital comme diirub lam lam fayoon bi jeex soxna si dañ koy bàyyi ca kër ga diirub idda ji bu fekkee kër gu moomoon bopp la itam dañ koy bàyyi ci kër ga diirub diirub idda ji loolu tam moo aju ci ki nga xam ne moom borom këram moo génnaat na comme toll ci idda ba tey ci wàllu alal itam te ca mujj gaa mujj nag mooy li ñuy wax donnante donnante itam ci alal la yoo xam ne dafa aju moom it ci sëy ak sëy ku alal donnante muy ñaar ñuy sëy ku ci génn àddina moroom ja da koy donn moroom ja da koy donn bu fekkee sëy bi ñu ngi ci sëy bi dara amul lenn lu ci lu ci lu ci lu ci dugg wala sax fase am ba soxna si jàpp idda waaye nag muy idda jot borom kër gi mën naa dellu ginnaaw ci biir idda ji mooy ne ko fase woon benn yoon rek ba muy jàpp idda wala mu fase ko ñaari yoon rek ba muy jàpp idda li feeg ñaari idda yooyu lu mu ci mën di nekk li feeg muy jeex ni mu ko waxee woon sëy baa ngi fi sëy baa ngi fi moo tax bu nekkoon di jàpp idda itam idda joo xam ne dellu ginnaaw ci biir mën naa nekk ku ci génnoon àddina ci ñoom ñaari dañuy donnante bu soxna si génnee àddina fekk mi ngi jàpp idda borom kër gi koy doon bu borom kër gi génnee àddina te fekk soxna saa ngay jàpp idda jooju nga te soxna si da koy doon ndax rek sëy bi ci boppam mi ngi ci dogut dinaa dogut nag àq yi nga xam ne sëyee koy waral àq yooyu itam dañ ci dañ ci nekk te miraas ci la bokk kon miraas itam bokk na ci waxu alal yi ko foo ci borom kër gi di dem ci soxna si mbaa mi ko xool ci soxna si dem ci borom kër gi moom itam te miraas bi ko waral moom it xeeti alal yi muy waxtaane ci la bokk liñ ciy mujjee nag moom du doon loo xam ne diggante borom kër gi ak soxna si la si ñoom ñaar waaye seen diggante ak jaboot yi la jaboot yi borom kër gi ak bokk bokki soxnaam wala soxna si ak bokki borom këram te fii ñu koy tudde ay teraanga lañ naan teraanga yu ñuy yu ñuy set teraanga yi nga xam ne njaboot yi nga xam ne seeni doom a ngi sëy teraanga yi seq seen biir yooyu itam ay alal da cay am joo xam ne moom it la ko waral sëy bee sëy bee ndax bokki borom kër bi li ñuy defal soxna si sëy bee tax soxna si li ñuy defal bokki borom këram moom it sëy bee tax ci ci ci misaal yooyee nag moom itam amu ci lenn lu nekk farata amu ci lenn lu nekk farata li ñuy tuddee teraanga yi ñuy yi ñuy jokkalante amu ci lenn lu nekk waru gar boo xam ne ku ko defut dañ koy sañ a taxaw yàlla dañ koy laaj amu ci lenn lenn doon ko ci lépp lu lu nit ñi defal seen bopp la rek loo xam ne am na ci yooyu sax man naa am te cosaan la doonoon na lu rafet waaye am na ci yooyu nag àgg na ci koo xam ne doonatut lu lu rafet doonatut lu gën doonatut lu gën bokk na ci yooyu lu mel ne li ñuy wax yeddi yeddi yeddi mooy bu soxna si xewlee di teral bokki borom këram loolu bokk na ci di am lu ñuy jël di ko jox bokki borom këram tudde ko ay teraanga loolu ci cosaan bu doonee lu yam loo xam ne lam man la da koo man day gën a rafetal ak diggante rek waaye nag dem naa dema dem nag ba am ci loo xam ne nit ki du ko defee ci sagoom nit ki du ko defee ci sagoom te nit lu mu defewut sagoom rek nekkatul lu baax nekkatul lu baax dem nañ ba jigéen ñi àgg ci foo xam ne duñ ko defee ci seen sago boobaa nag doonatul lu gën doonatul lu baax ndax luy rafetal ak diggante moom day doon lu ñuy defee sago waaye day àgg ci mën naa sax far yàq ay diggante ndax ñàkk ñàkk ñàkk dañ ko ñàkk defee seen sago mooy tax ba ñu cee tegoo luñ mënut ba dañuy wax sax léeg-léeg naan nit dana am doom ñu ko yëgal kañ kañ ko ndayale mu naan wax nga ay wax nga ay sa doom jar yeeyu ko na mu ne wax nga ay mën na ko wax ci kaw mën na ko wax ci ci xelam mën na ko bu wax ci xelam far mu rëcc ndax dëgg-dëgg daa mujj doon wax ay ndax dañ dañ ko cee teg loo xam ne mënu te sañu koo bañ loolu nag amatul loolu da lu gën bu dee ca cosaan nga xam ne luy rafetal diggante la woon rek nit ki li man rek lay def te itam lu mu defut itam kenn du ko ca yedd ndax dañu xam ne lii la man def na ko ba muy toll foofu rek moom lu baax la woon lu rafet la woon dara nekku ci woon waaye nag bu weesoo foofu nag dem ba ñu koy bëgg a àggale fenn fi te ku ko defut ñu ko koy yedde wala ñu koy xase di ko sikkale li ñu di tegoo luñ mënut di nekk ci fitna loolu nag nekkatul lu baax loolu nekkatul lu baax loolu misaal la ci muy def yedd yi ñuy def bokk na ci ñu ngi ci koor li ñu tudde suukaru suukaru koor suukaru koor cosaanam moom it lu baax la woon ndax moom it rafetal ak diggante la woon rek koor jot am ñu seq ay diggante kenn ci jël dara ci suukar dëgg lay doon suukar lay doon mu jël suukar jox ko ko mu jëfandikoo ko ci koor gi kooku ab dana rafetal ab diggante waaye sax dana dana jox dana may tuyaaba itam ci joxe suukar si ndax mën naa dund ci ku ku ku ku ku ku jox ku woor lu mu doge wala ku jàppale ku woor ci lu mu doge te loolu yonent bi daa wax daa wax la ca nekk ci ngëneel kon cosaan la lu rafet la yu bari yoo xam ne suñuy aada la cosaan la lu rafet la woon lu baax la woon waaye nag dañ koy mujj àggale foo xam ne nag du rafetate du baaxat kon suukaru koor loolu la woon rek loolu la woon du rek diggante loo xam ne ab sëye ko waral waaye ñu seq rek ñu seq ñu seq jàmm rek seq teraanga seq kóllëre bu koor jotee kenn ci ñoom jël dara ci suukar jox ko morom bi mu jëfandikoo ci koor bi rek lool waaye léegi àgg na foo xam ne ci biir sëy yi moom rawatina ci jigéen ñi koo xam ne moom it li ñu waxoon ci yàgg yi rek moo jàmm ndax moom it nekkatu léegi suukar sii si ñu jëfandikoo nii waaye duñ koy tudd suukar waaye leneen lay doon léegi ay ay ay ay ay ay ndima yu seer lay doon wala ay or sax wala ay parfum wala yoo xam ne te dañ ciy manante dañ ciy manante yàlla nag bu mu bu mu doon góor gu am ñaari soxna yu yu wujje wujje ci ci anam ki nga xam ne gënut kenn ku ne day bëgg a man moroom da koy bëgg a won da koy bëgg a won ne moo ko man ak lam ko lam ko lam ko mane ay bokkam di ko ca jàppale loolu wax dëgg yàlla taxut taxut taxut ab sëy jóg ab sëy du ab xeex bu ñuy xeex njaboot yi ñiy sëy itam du xeex bu ñu war a xeex seen diggante du nekkul la leen tax a jóg it war da doon di wane seen man-man ak seen doole ak seen yooyu yëpp waaye rafetal rek moo ko waroon tax a jóg dañ ko daan defee bu ca yemoon lu baax lay doon muy suukaru koor waaye fi ñu ko àggale léegi rawatina jigéen ñi dëgg yàlla moom nekkatul lu rafet nekkatul lu baax nekkatul lu gën nekkatul lu rafet nekkatul lu baax nekkatul lu gën ndax defe demewuñ ci seen sago demewuñ ci seen man-man te lu baax nag day doon lu nit ki di defee sagoom te di ko def di ca def lam man yi doon farata sax nit ki lam ca man lañ ko sant sàkkantumaa nag loo xam ne du farata kon nit lu man lañ ko sant moo xam farata la moo xam du farata waaye bu demee ba sañ bañ la nekkatu lu baax bu suukari koor yenn yi moom ci yenn béréb yi bu baax sax moom léegi léegi léegi moom daal benn waar te ginnaaw ginnaaw yu bari xamuñ ko woon Tuubaa Tuubaa yu bari ci mel nii ñu jàmbat xamuñ ko woon waaye jamono jii nag moom lépp lu ñu daan jàmbat ci yeneen béréb yi ci aada yooyu léegi waa Tuubaa toppandoo nañ ci ñeneen yi yiñ daan jàmbat ci feneen bi te xamuñ ko woon noonu léegi te liñ naan koy dàq sax day am day mel ne mbir ka ca jiitu sax daa dem moom ba xaw a toqi wala ba xaw a dal waaye ki ci door dugg moom day xiir day xiir ba da ciy ëppal ba tax na ñuy jàmbat day mel ne sax bootul mën naa ëppee mën naa ëpp ci suñ béréb yi nga xam ne boobu yàggul rek xamuñ ko fi woon yooyu daal sëriñ moor moom laa waxoon na xëy na manees na ko ubbee waxtaan ci xeeti alal yi nga xam ne day am ñu di ko jokkalante ab sëy di ko waral da ca tàmbalee ci ba sëy bi amagut ba ba sëy bi amee ba buñ demee ba sëy bi jeex sax la nga xam ne diggante ñaar ñi dencante la ak li nga xam ne seen diggante la ak diggante mbokk yi ka ca des diggante borom kër bi mbokk yi soxna sa wala diggante soxna sa mbokk borom kër ba yooyu yëpp ci luñ ci joxal jokkalante ci wàllu alal luñ ci teewlu lu ci ne jéem nañoo wax la cay waru gar ak la ko ca nekkut ak lu ci nekk itam buñ demoon ba jamono soppiku ndax ka joxe woon dana ko sañ a laajal sëriñ Mor pour daal la jàppoon ne ma des na cee tënk maa ngi jégalu bu baax di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh